محمد xam ko Serigne Bara. mbokk taalibe ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides Serigne Ahmadou Makhtar xalifa Darou Khoudoss Serigne Moustapha Matiley xalifa Serigne Bara Serigne Moulay Mbacké xalifa Serigne Balla Thioro Serigne Khadim Mbacké xalifa Serigne Cheikh Thioro comité de pilotage journée culturelle et religieuse Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñoo am mbégte di leen digal 16e édition bi ñuy amal samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre 2023 ca Cissas ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh Thioro ak Serigne Balla Thioro. journée bi nga xam ne tàmbali nañ ko depuis 2004 ñi ma ko àndaloon ñu ngi nii président mii muy sëñ Jiili depuis 2004 ba nëgë ni fu ma gëstoo gis ko ci sama wet ñu ànd ko mbokki talib yi li ma intéressé mooy ñi nga xam dañ leen a woo ngir jëmmi Serigne Bara bu ñu ñëwee gis fi Serigne baara mu tàmbali sëñ Serigne Bara yem ci Serigne Bara benn caaxaan wala benn mbiru àdduna bañ fay am fa tabaarakallaahu daaw yàlla dimbali nañ ba amu fi. di santaat yàlla tey la samedi incha allah rabbi ñuy waajal le vingt cinq samedi bi di ñëw incha allahu rabbi mooy le vingt cinq novembre tey nag lañ doon def avant dernière réunion tey lañ ko doon def fii ci CICES depuis takusaan ba léegi ñu ngi fi daanaka boo xoolee vingt deux heures daanaka léegi mu jot macha allah tabarakal loolu lépp li ko waral mooy tolluwaayu journée bi ci réew mi ak ci Sénégal yi ak ci jullit ñi ak ci ñi koy taxawal muy sëñ Bassirou Mbacké Khadim ak ñi mu ko àndal ñëpp ndax tey réunion bi réunion bu mag lañ fi def. boo xam ne dangay gis pas-pas bi nit ñi àndal ak cawarte gi ak xër gi loolu lépp da cee feeñ. xanaa di soññiwaat rek sama mbokk taalibe yi lu ngeen gënoon a góorgóorlu doyul nañ ko gën a dolliwaat. njabootu sëñ Cheikh Thioro ak sëñ Balla Thioro ñu ngi lay sant bu baax seen xol sedd na guy bis bi ñëwagul waaye dañuy wax ni bu fi yemoon ñoom seen xol sedd na. kon nag sunu rangoñ fer na. waaye it rangoo ñu njaboot gi yëpp fer na kon ñu ngi lay ñaanal ci barke sëñ Baara nga yàgg fi loolu te ànd ak wér. tey nañu waxtaanee question yu bare bare bari ndax mbooloo ku tudd da nga tudd trans danga nga tudd déplacement déplacement mooy transport mbooloo ku tudd da nga tudd xéewal mbooloo ku tudd da nga tudd raj-rajloo mbooloo ku tudd tudd maanaam yu bare bare bari yu mel ne wàllu sécurité donc tey yooyu la ñu doon waxtaanee macha allah tabaaraka muy point yu sensible yoo xam mënut a ñàkk essentiel yoo xam bokk a ñàkk ci ndaje bu dee am yooyu yëpp nag la ñu doon waxtaanee loolu lépp li ñu jublu na ngir bis bi euh, bu ñëwee rek liñ ci bëgg lépp te sëñ Bassirou Mbacké Khary Awa bëgg ko ci ak comité d'organisation bi àndal ñu am ko ci li amat solo te feeñaat ci bis bi muy sëriñ bi nga xam ne moo woote bis bi muy sëriñ Bassirou yaatal ñëpp ci bis bi taxaw ci bis bi jiit ci bis bi mujj ci bis bi bis bi kenn mun cee def lu sëñ Bass xamul bâche bii bis bu nekk 23h la fiy jóge détail bu fi nekk xam na ko ba ñii di liggéey bâche bi ci seen xam bu rafet danañ daf liggéey ba noppi sëñ bas leen lii ak lii ak lii ñoom dañuy waar waat jàngaat jommi waat kooku nag mooy sëñ Basiru Xaadim Awa Ba ci organisation euh, ku xam na ne ñu ngi ci waajtaayu journée culturelle sëriñ Mouhamadou Lamine Bara euh, nekk 16e ñu fas yéene defee ko fii tey ci foire bi nekkoon ci réunion yi nga xam ne mooy dernière réunion yi waajtaayu journée sëriñ Mouhamadou Lamine Bara euh, tey sëriñ Bassirou Mbacke Xaadim Awa Ba àndoon ak président commission commission yi nga xam ne ñoom ñoo seq wàllu liggéey bi dajoon fi tey doon waxtaan ci lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu organisation bi ndax ku ne xam ne ne journée bi journée bu rëy la ku ne xam ne ne journée bi li fi dajee ci mbooloo euh, dafa bari te itam mën nañu wax ne Sénégal kenn du des kon nag ndaje bu mel noonu bu waree am ci bërëb bu mel nii jàpp naa ne comité d'organisation bi seen taxawaay war naa ràññeeku seen taxawaay tam war naa fës loolu moo taxoon sëñ Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba àndoon ak sëriñ Jili mi nga xam ne mooy président comité d'organisation bi ak sëñ maam Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo jiite commission culturelle bi ak man sëñ Babacar Si mi nga xam ne maa jiite commission euh, communication. ba tax na tey yooyu yëpp commission yëpp tey waxtaan nañ ko nit ñi indi nañ seen xalaat indi nañ li nga xam ne tam xëy na gisoon nañ ne daaw moo nekkoon ay rëq-rëq yooyu yëpp sëriñ bi tam jël na jëlaat na engagement ni mu ko daan jëlee côté yëpp ci wàllu restauration wàllu transport. wàllu sécurité ak wàllu euh, communication bi lépp rek macha allah tabaraka yooyu nga xam ne ñoo tënk bis bi yëpp waxtaan nañ ci ba macha allah tabaraka mu indi ci ay ay décisions yu am solo ak i euh, maanaam ay ay engagement yu am solo yoo xam ne incha allah rabbi euh, jàpp nañ ne bisub ren bi incha allah rabbi dana dana dana mel noo xam ne ñu koy ñaan yàlla mu àgg ñu kawe njort loo xam ne incha allah rabbi dana dàq bis yi fi daan jaar. waaw ku ne xam ne ne événement di koy caractériser wala di koy jëmbal mooy communication te communication boobu alhamdulilah euh, Serigne Bassirou Mbacke Khadim Awa Ba bépp télé boo xam ne rek mu ngi ci réew mi euh, waxtaan nag yow négocier ak yow ba journée bi lépp loo xam dafa jëm ci wàllu communication euh, di ko commencé ci njëlbeenul xew-xew bi ba fa xew-xew bi di jeexee lépp luñ ci war a def rek sëriñ bi dëgg-dëgg am na ci taxawaay boo xam ne taxawaay boobu du dara loolu rek fas yéene jëmal bés bi. ba képp koo xam ne yàlla dogal na mu mar a ñëw dana ñëw képp koo xam ne yàlla dogal na mëntu ñëw itam fépp mu mën a nekk rek danañ ko fa fekk donc jox ko information yi loolu moo doon solo si bés bi tey nekkoon solo soo xam ne solo si am solo la kon daal ñu ngi ci woo waa Sénégal yëpp di ci woo kilifa diine yëpp di ci woo association islamique yëpp waaye di ci woo itam képp koo xam ne rek dëgg-dëgg liggéey yu mag ñi yaa ngi ci doon liggéey ñu ngi lay woowaat ci bés bi nga fas yéene ñëw ci taxawaay bi di ci woowaa presse bi yëpp itam xam nañ seen taxawaay ci lépp loo xam ne lislaam la waaye lépp loo xam ne itam dafay jëmmal liggéeyu mag ñi ak taxawaayu mag ñi. daanaka 22 heures jot na depuis 16 heures ba nit ñaa ngi fi daje donc li muy wane rek mooy réyaayu bis bi ak fi mu toll doomu aadama ak fi mu toll ñi nga xam ñoo koy organisé kon daal ñu ngi ñaan yàlla ñu ci dugg ci bis naan génn ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla su borom subhanahu wa taala ko at yu bare bare bëri ñu teewe ko ci barke moom Serigne Khadim Awa lii mu engagement bi mu jël ci Serigne waaye engagement bi ñëpp gis nañ fi mu ko yóbbu ndax nit yàlla ñoo nekk ñoo xam ne ku leen liggéeyal sa bopp ngay liggéeyal ndax yàlla da leen bëgg fiir ci ñoom nga képp ku leen liggéey yàlla suma subhanahu wa taala moo lay fay waaw kon nañ ko ñaan yàlla yàlla guddal fanam gën ko yëg xéewal ndax lu mu ah, lu mu am rek yéene na ko bis sëñ baara bi ñu ngi leen sant tamit yéen waa Tawfekh Production ñu leen sant bu baax a baax ci seen taxawaay fas yéene ànd ak yéen lépp liggéey rek incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah ndax ren comme niñ koy waxee carte invitation amul li des mooy ñu wéral ci biir nit ñi ni leen journée bi am na ni mu daan amee nañu fexe ba mobiliser wu teel a ñëw te teel a ñëw googu wane na am nay xéewal ci suba si am na fi añ ba pare li ci ëpp solo balaa trois heures war nañ ko fee waxtaane bu soobee sunu borom. bés bango seizième édition journée culturelle et religieuse Serigne Bara samedi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre deux mille vingt